aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan te di ñu déglu ci sunu émission bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci sunu site bi ñuy wax 24actu ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñaanal leen di sàkku ci yéen tamit ñaan di siyaara mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp jataay bi ak fu nu mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew yal yàlla defar seen mbir te defar suñu mbir te yàlla boole nu dimbali. tey ji nag ñu dellusiwaat ci beneen tomb bu gàtt bu nu fas yéene waxtaane incha allahu rabbi kenn ci njabootuk sëriñ Touba gi ñu fas yéene waxtaane soxna Aysatu Mbàkke bintu xaadim rasul ñu gën koo xam ci soxna Mbène Gabou soxna Mbène nag kenn la ci njabootuk sëriñ Touba gi nga xam ne moom la ci njabootam gu jigéen gi moom nag yàlla defal ko xaas ci sëriñ bi sëriñ bi di waajuram waaye di nijaayam tamit ndax xam ngeen ne moom ku ñuy wax soxna Faati Xujja mbakke di doomi eh, sëriñ mbakke Kajoor mooy waajuram kooku nag moo doon waajuru soxna Faati soxna Faati moomu nag moo jur soxna Mbeen Gaabu mooy waajuram sëriñ Tuubaa di waajuram wu góor mu gane àdduna ci ngaabu ci 1922 am ñu wax 21 waaye lu ci mën a am rek ci waxtu yooyu la gane àdduna ci ngaabu foofu tamit yàlla dogal na fi ko sëriñ bi dëloon euh, waajuram tamit foofu tamit fa nekkoon muy soxna Faati Xuja ginnaaw bi mu gane àdduna nag sëriñ bi wax ci wax yu bari yu yéeme sax sëriñ bi wax ne nan ko wutal aw tur jamono yooyu nu koy wutal tur yi tamit sëriñ bi tànn lu mat juróom-ñaari muhammadu yabal leen ca sëriñ ma Mandumbe wax nañ ne ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne seen lim du jar wax waaye sëriñ bi moo wax ne bu ñu demee nañ ko tuddee ki nga xam ne moo di soxna Aysa Aysa nag moo doon doomi Seydina Abubakar ju baax jooju nga xam ne nekkoon i tamit kenn ci njaboot ci soxna yi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te yonante bi doon wax na xuusoo nisfu diine min asil xumara seen xaaju diine na ngeen ko jëlee ci jigéen ju gàtt ju xong ji na ko ci jëlee sëriñ bi tuddee ko ko mu doonoon tamit boroom xam-xam bu rëy boo xamante ni yonante bi sallallahu alayhi wa fonkoon ko lool cofel googu nga xam ne sëñ Tuubaa ko amoon ci waajuram amoon koy tamit ci ki nga xam ne moo di eh, yonante bi sallallahu alayhi tax mu tuddee ko ko bi ko tuddee dem bi mu matee dal jàng nijaayam moo ko jàngal ndax fi mu bokk moom ku nekk xam na ne nit yi diine leen ay nit ñoo xamante ni Serigne Touba ñum fonkoon la ndax wax na ne sëriñ bi bu ma wax ne sama baay wax na ne sëñ Mbàkke Kajoor la ci jublu sëñ Mbàkke Kajoor nag teel koo jébbal doomam yëpp yu góor yi ak yu jigéen yi jëbal ko Serigne bi. sëriñ Mbàkke nag daana wax ne man de xaw ma am na baay waaye man am naa doom am naa doom ju mat doom loolu tax na ginnaawam bi mu fi jógee sëriñ bee yebal maam Cerno ñu taxawu ko ak ci am yépp sëriñ bi tamit biñ ko wutalee tur sëriñ bi wax na nan ci def lépp loo xamante ni lu dagan la nan ko ko defal wax nañ ne lu nekk lewetal nan ko ba ci gileem sax lewetal nan ko ci jamono yooyu jamono yooy tamit sorewut ak bi sëriñ bi wootee màggaluk Tuubaa bi sëriñ bi diglee bi mu ko diglee ci njaareem sorewut ak bi soxna Mbène gane àdduna am na ñu wax ne 1921 la ko sëriñ bi digle ca déwén sa la soxna Mbène judd kon loolu day tegtale rek ne jamono bi ñëwee fekk na bu baax a baax a baax sëriñ bi yàlla fay ko fay goo xamante ni gu yematul ci moom la waaye gu àdduna bépp mën a jariñoo ci la soxna Mbène moomu feeñe bi mu jàngee alxuraan nag ba ni ko doomi soxna yëpp defe ak njabootuk sëriñ bi di ko defee jàng ba wattu alxuraan jàng xam-xamam loola nag ci lak sëriñ bi ñu tàmbale ko yóbbu nag bi nga xamee ne nag jàng na ba ya des te waru juróom jigéen mooy nekk fu muy liggéeyale di jaamu yàlla ci lako ko sëriñ Muhammadul Moustapha yóbboo ci ki nga xam ne moo di sëriñ Mbay Jaxate foofu la njëkk a dem ginnaaw bi mu jógee sëriñ Basiiru wax nañ ne moo ko yóbbu ca kër sëriñ Ibrahima Lo kër sëriñ kii sëñ Mbay Jaxate amoon na soxna Njaxate ak ñeneen bu dee ci kër sëñ Ibrahima Looy tamit sëriñ moo Amadou Loo mi ak soxna Bintu ak soxna maam Buso ak soxna maam Ami mi nga xam ne mooy caatu soxna si ñoom la fa am. na leen yàlla defal barket te yàlla teg ci ñoom loxo soxna si tamit doonoon koo xamante ni ku yàlla teel a dimbali la ci sëriñ bi xamut sëriñ bi lu bare bare bi mu fi sëriñ bi joge gone la waaye teewul ñaar yi dal yépp teewul mu do gone la ba noppi di jigéen waaye loolu taxut soxna si masa wi cax loxo mukk ne su ma doon góor dinaa defal sëriñ bi dara lam ko war a defal lépp lam ca man lépp def na ko ba fi jóge doonoon koo xam ne tamit lépp lu góor di liggéeyale sëriñ bi liggéeyal na ko te mu dagg te man ko muy bay ak gor ak yat loolu lépp sëriñ bi soxna si defal na ko amoon na ay daara yoo xamante ni daara tarbiya la yoo xam ne daf ci doon tarbiya di liggéey waaye lam leen daan xemmantool ci lem ca liggéey ba da leen daan wax ne liggéey bi ngeen di liggéey de li ci jublu du alal du dara waaye li ma ci jublu ëllëg mat taxaw seere leen ci kanamu Sëñ Tuubaa loolu rek laa ci jublu euh, ku nekk xamoon na tamit ne ku doonoon jàmbaar la ci wàllu liggéey ak wàllu joxe ak wàllu ñemeeg njaboot ñi ko xamoon ñëpp nee naan boo mosaana dikk ci këram wax na ne bi mu fiy jóge sax bàyyi na fi lu mat juróom-ñaari daara yoo xamante ni ay daara la wax na ne bi mu bi muy nekk ci këram boo masaane dikk da nga soxna mbenn ndax kër gi dara dafay xew ndax njaboot ku bari bokk na ci tamit li nga xam ne ci métatu yar bi mu daan def ku mas a togg ci kanamam nga koy taaj muy tibbaate mooy xelli kafe ngir jox ko xam ngeen ne loolu dafa bokk ci communication dafa bokk ci yar maanaam ki ngay yar ngeen di bokk lekk ak ngeen di toogoo di jataayu ndax loolu Abdullah ibnu Abbas nee na mas na maa bokk ak yonent bi salaa salaam booba xale bu ndaw laa nee na may def lu ma bëgg lekk rek ci ndawal gi fu nekk ma yemale fa sama loxo yonante bi salaa salaam ne ma kul xul bisimilah wa kul maa yalik ne ko booy lekk na nga wax bisimilah te na nga yem ci sa kanam te na ngay sàqami ba noppi soog a tibbaat Abdoulaye Ibn na nee na dem naa ba yor sikkim bu weex tàll waaye loolu day jeexital sama xel loolu ma yonante bi waxoon dafa mel ne dañ ko garaawe sama xol waaye soxna si noon la daan def xam ngeen nit ki dañ koy aaye mu lekk càmmañ dañ koy aaye mu naanee yooyu yëpp boo toogut ak xale bi ngay yar ak yarin wi ak yooyu doo ko mën a kii loolu bokk na ci soxna Mbène bokk na ci tamit ni mu jàppe woon ñin ko joxoon noonu la jàppe woon ay doomi boppam lim daan xottil dongo yi loolu lay xottil doomi boppam euh, bokkoon ci tamit ci ku bëggoon sëñ Touba ba tax na njabootuk sëriñ Touba gi ñëpp ñëpp ñëpp ay xaritam la woon leen ko doon mag mag lépp teewut ñu nawloo woon ko nawloo woon ko ci xalaatam nawloo woon ko fonkoon koy tamit ci jëfam bokk na ci ñi nga xam ne doomi sëñ Tuubaa yi njëkk a génn daanaka ci fii ci eh, biir réew mi rek dem di ci liggéeyal sëriñ bi ndax sëñ Modou Moussa dafa mas a wax sëñ sëñ Abdou Khadir da ko mas a laaj ne ko euh, moom daa mas a dégg sëñ Abdou Khadir mas a dégg mu koy nettali mun ne ko bi dafa mas a dikk ci sëñ bi ne ko waa ñun lu ñuy liggéey lu ñu lay liggéeyal mu ne ko yéen de li ngeen may liggéeyal fexe ba nit ñi jub loolu mooy seen liggéey ci man sëñ Abdou Khadir na loolu de fekkee wu sëñ Modou Moussa ba ko sëñ Touba waaye xam na moo ko fekk woon it la ñuy wax kon loola moo tax soxna Mbène tàmbali woon di dem ci dëkk yi nga xam ne moo di Ndakaaru dem Mbuur dem Sowal dem ay Kees Simol dëkk yooyu nga xam ne daanaka am na ci côté yoo xamante ni sax ñoom far du ñuy jullit du ñuy julli xamuñu diine sax waaye ba léegi boo fa demee da ngay jeexitalu soxna Mbène ak lam fa def. ñu ci baree baree bari ñoo xamante ni bokk na ci doomi sëñ Tuubaa yi nga xam ne yi ëpp ay turandoo yoo xamante ni ay turandoom kenn xamul nu mu toll ndax li ko mayoon mooy ak laabiram ak alaaxam ak baaxam bokk na ci daayira Hizbut Tarqiyyah bi wax na ne ñi ko taxawal daanaka soxna mbenn ci la taxawoo ndax booba da daan dem biti ndakaaru étudiants yeeg élèves yi daan jàng ñëpp dañ ko daan dikk di ko siyaare buñ masaana dikk bari na ñu baree bari ñoo xam ne këram gi la ñuy wakaase buñ dikkee mu xamal leen sëñ Touba nàmpatal leen nee bu ma saana dikk li muy jënd ci mat la kenn xamul nu mu kër gi fees dell ak kii ba tax na lu bare bare bari ci jàngalekatu alxuraan yi am na ci ñoo xam sax ay jigéen ñoo xamante ni ñoo tax ñu am borom kër ci dëkk bi am na ci ñoo xamante ni ñoo tax ñu am ay soxna moo leen ko li lijjanti topp leen loolu mësu cee xaar kenn mësu cee xaar kenn. doonoon ni tamit koo xamante ni ñi mu bokkal sëñ Tuubaa ñoom ñëpp dañ ko bëggoon bëgg koo xamante ni sëñ Fàllu mas na ko wax ne ko ñu siyaare ko bay dem mu ne ko aka nuuru baayam ak aka nuuru kooka te ma ngi ci jublu baayam doonoon koo xam ne tamit fonkoon na ko lool moom Serigne Fall fonkoon na ko lool. soxna mbenn saa boo ko tuddee sa xel dem ci ngaabu mook soxna jaara rek ngay tudd poroxaan boo ne soxna jaara sa dem ci poroxaan waaye boo ne soxna mbenn sa dem ci ngaabu ngaabu go ay toolak lu nekk la fa daan def. bi muy nekk ci kër kii tamit ku mel ni Serigne Abdoulahi borom dër bi nga xam na xaritu Cheikh Ibrahima loola la waxoon waaye nag foofa la doxe ba fonkoon soxna Mbène fonk goo xamante ni gu jégg dayo la lu nekk la ko daan wax lu nekk ay garab yi lu nekk la ko daan wutal ngir mu ciy liggéey <coughs> kon jàpp naa ne ku nekk xamoon na diggante ak moom ak alaaxa bi mu amoon mook sëñ Abdou Lahat nag sëñ Abdou moom tudde na ko ñaari doom ñaari doom li ko waral mooy jàmbaar gi nekkoon ci sëñ Abdou dafa nekk ci soxna nga xam ne dañoo bokkoon pas-pas ci bëgg sëñ Tuubaa waaye bokkoon pas-pas ci doon jàmbaar lépp loo xamante ni lu neex sëriñ bi la ci la ñuy xëy ci la ñuy gont doonoon tamit ku amoon fit ku amoon fit amoon xalaat dëkk bi wax nañ ne yu bare bari saa bu ko ci masaan a gis te neexu ko day dem ci sëñ Abdu Lahat wax ko ko ku masaan di jébbalu si moom i tamit di góor dalay wax demal jébbalu ci ci sëñ Abdu Lahat wala mu yóbbule kenn ci njabootu sëriñ bi dégg ngeen léegi ma wax na sëñ Basiiru moo ko yóbbu woon foofu nga xam ne moo di ngaabu loolu li muy tegtale rek mooy ku nekk xam na ne ay kilifaam ñoo nekkoon kii ñoo nekkoon ay kiyam ñi mu bokkal ci wàllu sëñ Abdou Khadir mi ku nekk xam na ne ni meloon ci moom tuddee na ko doom moom i tamit loolu am na lu muy jeexital bu baax baax baax te ñoom ñooñu ñoo ko xaw a mag lu mu néew ñoo ko mag ab diir ndax soxna Mbène kenn rek la mag ci njabootu sëriñ bi muy soxna Ami Seex te loolu teewut fi ñu toll bu ñuy tudd doomi sëñ Tuubaa ak bi mu fi jógee léegi ni mu xaw a yàgg waaye teewut faaw nga tudd ko ndax ni mu meloon ni mu marqué jamonoom ay turandoo wax naa ko dañ koy tuddee ñoo xamante ni sax seeni waajur xamuñu kër gi xamante wu noonu njaboot gi jékki-jékki ne kii soxna Mbène laa ko tuddee. sëñ Saliou mi da ko bëggoon ba nga xam ne wax na ne bu ma saana bay ba noppi wala mu ruuj ba noppi day wax soxna Mbène demal ci sama tool yi nga wër nga ñaanal ma ci soxna Mbène wër tool yëpp ñaanal ko ci. loola jàpp naa ne am fu mu ko tegoon soxna muslim yi mas nay dem ndakaaru la mu fay toppatoo wax na ni benn machine la woon boo xamante ni waaye ba mu dikkee ne ne nan dem ci kër soxna mbenn ñu ñaan loo ko ndax looy lijjanti mu mu lijjantiwu waaye nee na naka lay àgg loola di lijjantiwu te ñoo bokk sañ Tuubaa waaye xam ci moom xemmam teew ak yaakaar moo tax mu ko doon def ak loolu it bëggante gun bëggante woon rek ku ci nekk jàpp na ne sa morom lim mën a am ci yow la mën a jaare lim war a am ci sëñ tubaa ku nekk daa jàppe woon sa morom ab sëriñ ñu nawloonte woon lool yàlla bindoon leen ñu bokk sëñ tubaa ci jikko nuroo ci bind waaye nuroo ci jikko nuroo ci bëgg tamit lu baax ak lu bañ seen njaboot yi mënoo leen a xàmme koo xamante ni kii na soxna mbee yi tamit doonoon koo xam ne ku mu mas yar bu lay dem dana la dénk ne la fii nga jóge de foo dem de boo fa jiite wut boo jiite wut waa kër ga wala nekkoo ca kanam xamal ne jëlewoo ko fii leneen loo fa mën a def lu dul loolu xamal ne jëlewoo ko fii. amoon ci ñoom ñeewante ba nga xam ne daana ku ci mas a feebar wala nga toll ci nangam moo lay yóbbu ba sa kër moo lay la ca war ci yow lépp moo koy def di la nemmeeku guddi ak bëccëg bëgg njabootuk Serigne Touba gi ñoom ñëpp muy sol aw dàllam di dem. wax na ne bu masaana jóge ndakaaru ba tukki bay ñëw la muy xottil boppam ci lay xottil njaboot sëñ Tuubaa gépp wax nan ne bu masaana dikk itam waa bar barsàq yi ñoom ñëpp da leen daan xottil ñi nga xam ne ñoom la fi sëriñ bàyyi woon ndax jàppe woon leen comme soxna Faati Xujja ñoom ñëpp la taxaw woon taxawaay boobu doonoon koo xamante ni tamit mboolem ñi njabootu sëriñ bi sëñ son yi bu noonu la meloon ci moom moom tamit tudde ko doom gis ngeen ko ñoom ñëpp ku ci nekk boo demee kër sëñ Modou faat Xari yi tudde na ko moom it ay doom yu bari da ko daan wax sax na ko soxna mbenn dama lay tudde waaye dama lay yarloo ku ma fi yar bu demee bu sëyee ma indil la keneen sëñ daan noonu la meloon ak moom sëñ du Baaxe tudde na ko doom njaboot gi ñoom ñëpp ku ci nekk sëñ Abdou Salaam boo demee kër Maam Mor Jaara ñoom ñëpp ko tudde doom sëñ Seex Penda ña fa nekk daanaka ñoom ñëpp noonu lan meloon ci moom boo dikkee ku nekk sëñ Naar Jeen ak seex ci ñoom ñëpp fu ci nekk gis nga ay turandoo yoo xamante ni soxna benn am na ko fa te lu ko may mooy jikkoy boppam ak rafet jikko bi mu wéradee fii soxna musleeg njabootu sëñ Tuubaa geeg alaaji Abdu mas na koo fekk ndakaaru muy jënd ay lu muy jënd waaye alaaji Abdu Kera dane borom naaru libaane bi wàcce loo wàcce dinaa ko fay kii doomi sëñ Tuubaa sama doomi sëriñ la waaw ku nekk xamoon ni meloon nag noonu la ko yàlla binde woon mu doonoon ko teeloona a amul tur nag teel siiw lool teel a siiw lool nit ñi teel koo xam lool mbooloo mi teel ko wuy si muy liggéeyal sëñ Tuubaa ci ñoom mosoo dégg fenn fu mu dem Dakar ñu ne dañ koo recevoir buura ko recevoir wala ku ku liggéey ci gouvernement sax wala dara ndax ni sëñ tubaab bañe woon ay tubaab noonu la bañe woon lool noonu la bañe woon i tamit di jaxasoog niti nguur loola da ko daan daw ni nga xam ne ni lay lu araam ndax xam na ne jaxasook ñoom benn kom nekku ci loola nag alhamdulilah njabootam gi it wax dëgg yàlla taxawaay boobu rek lan am ci ñoom i tamit muy sëñ Modou Lo Ngaabu mi yëg aji soxnaak soxna Bintoog ak ñoom ñëpp son maam bu sama jitoog ñoom ñëpp bi fi yonante bi sallallahu alayhi wasallam jógee rek te Seydina Omar yor fee jaaseem Seydina Aliou nekk fee ku ma tàggee yonante bi ma dagg sa baat waaye loola rek nga koy xiyaas xam ne ku baax bu fi jógee faaw ay yëngu-yëngu am noonu la meloon ñu ngi koy ñaanal yàlla wanale ko seexul xaddim mi nga xam ne moo di waajuram te yàlla nangu liggéeyam ndox ba tam ngi mu fi bàyyi yàlla barkeel ko ñu sant mbokk yépp di leen gërëm di ñaan nag lépp luñ ci juumit ñu ngi koy jégalu waaye soxna Mbène moom jàpp naa ne kenn mënu cee wax surtout diggante bu tuuti bi kenn mënta wax ay jukkoom waaye ku bëggoon sëñ Tuubaa la doyloo woon ko doon ko liggéeyal nag doon ko liggéeyal mësut wiccax loxo mësul def dara bi sëñ Tuubaa di jóge nga ne ah kii de li muy xale wala xamul baayam moo tax mu def li déedéet mësta def loolu loolu it noonu la yare njaboot gi ko joxoon noonu la yare njaboot gi ñu ngi sant ñëpp di taxawlu fii xañ na dina indiwaat yeneen jataay di ñaan yàlla sàmm njabootam gu góor gi ak gu jigéen gi di ko siyaare mboolem ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp Moussa moo nekkoon ci maan bi ak Seexuna ki nga xam ne moo doon réaliser émission bi soxna Awa Ndiaye ki doon monter émission bi di soxna Khady Niang ñuy sant ñëpp gërëm ñëpp di leen jox daje ci yeneen i jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. مرتجا منة لنا جريء